man la Matar Gueye dëkk Jolof euh, nekk village bu naan gi ci département de Linguère commune de Warxoox suñ euh, nga nekk chargé de mission ministre de l'Intérieur nekk apériste tey fan la seen parrainage bi toll foofu waaw suñu parrainage bi alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw ban sant yàlla jul si bi parce que dañuy am kontaan ak mbette loolu boo supposé danañ sawar loolu ñu répondre ko li ko waral mooy euh, parce que jamono tey tey jii may wax ak yow nii jot naa si ay appel yoo xam ni ay nit dañ ñuy woo pour ñu pare na leen. ndax euh, ñu ngi sant yàlla ñun si biir commune de Warxoox waxuma laa si Jolof rek lañ ñu laajoon si parrainage dëgg-dëgg neex yàlla dépassé nañ ko nekkaat si leneen. te fii mu ne ñu ngi ñu ngi ne si ay problème yi nga xamante ni mooy war a delluwaat si village yi nga xam ne ñoom dañ ñoo woo en personne pour ñu pare na leen. kon parrainage moom alhamdulilahi rabbil alamin ni ko euh, président bëggee defee nañ ko. ànd ak ministre de l' intérieur ak sunu honorable député Yoro Sow. suñu bëggoon xam tey yow sa relation ak ministre bi comme tey de mission fu sama relation ak ministre de l' intérieur mi ngi jógee depuis 2009 euh, jamono jooju ñu ngi bokkoon si mouvement de la renaissance di Jolof si euh, mouvement boobu nag si lañ euh, xamante commencé jëflante ak di liggéey wax dëgg yàlla depuis boobu ba léegi ba mu jàppee bawul. comme moom ni mu ko si waxee rek euh, liggéey la gëm te comme te liggéey la gëm ñun ti ñu gëm liggéey fekk si ko te si lu gëm te doon na ji nga xam ni moom Jolof a ko ñor te Jolof a ko bëgg moo taxoon ñun ñu amoon pour ànd ko nag moom loolu moom moo ma boole Jolof boobu nga wax seen la loo xam ne tamit dëkk Jolof maam waa Jolof parce que Jolof tey jamono jooju loolu boom boo mu supposé sawar naa ko ma répondre ko parce que li ko waral ndax Jolof amoon na jamono dañ doon jooy tali mais di jooy am ndox mais alhamdulilah léegi dëkk yi tali yi bëri na fa forage yi bëri na fa ndax euh, jamono ji toll dëgg-dëgg neex yàlla jolof moom alhamdulilah parce que bu nekkee si wàllu tali ministre de l'intérieur yi jàppale la si askanu jolof bu nekkee si wàllu forage plus de 83 forage si lu ma xam man def nañ ko fa kon si ay g ay lépp li nga xam ni financé nañ ko mais pour doom yi ak jolof yi liggéey côté boobu moom macha allah moom te pare guñ suñu tey nii kon su ma la gisee tey ñu ña nekk foofu seen i jiitu Jolof xam ne ñu foofu ne aal ah def fi dara ah ministre bi def fu dara liggéey. nee naa la ñun jamono ji ko ñuy xeex ku ne da ngaa bëgg ñun ñu puus nga toog waaye ñun ku bëgg ñu puus mu toog da ngay liggéey lu ñuy liggéey yëf yi du ay wax da ngay liggéey ñun nag am loo xam ne ministre moom moo ñu ko jàngal dañuy wax lu tuuti jëf lu bëri ñun loolu si moom lañ ko xamee ay waxam bëriwul ndax lépp lu muy def liggéey moom moo ko jox ku bëgg a nag mais pour xeex pour ay wax yu bëri yooyu am sens li am sens mooy liggéeyal bis boo liggéey nit ñi gis na li ngay liggéey mais ay wax olof daana wax naan kii wax ba falu bu noppee fu léegi am ñoo xam ne ay wax leen fal dañu ay wax faluñu ñun dañuy wax lu tuuti jëf lu bëri. Euh, lan ngay wax ci élection yi jëm tey ban message ngay lancé ci doomu jolof yi euh, ci élection yi nga xam ne tey ñu ngi ciy jël. li may lancé si doomu jolof yi képp ku am carte war a dem voté ji mu dem voté ji li may encore si doomu jolof yi ñun jolof. nañ xam nañ am parce que damay yàgg wax ci cérémonie yi ne ñun nañuy ñaanal ministre de l'intérieur ndax bu amee jàmm ñu am jàmm su amee ñu am ndax ndamam mooy sunu ndam ndax dëgg-dëgg neex yàlla am loo xam ne ban kay signé fii si man dama fekk duul luñ may nettali man lu may wax dama xam duul lañ may nettali la xamoon ne siyante woon nañ ko ak président dëgg-dëgg neex yàlla ñun dépassé nañ ko te ñu si ay leneen loo xam ni moom moo ñu ñor ko si biir Jolof kon lu may ñaan mooy askanu Jolof képp ku dëkk Jolof wala képp kuy sénégalais na nga préparé dem voté ji voter président Macky Sall ñu génn premier tour. may wax sa fief Jolof ngay géej gi nga xam ne foofu la dëkk. ngiej li ma si wax euh, sant yàlla rek parce que am loo xam ne man su ma nekkee biir ngiej euh, comme lu ko chef de village waxee woon depuis 1962 ba léegi ngiej musta ta dégg chargé de mission de ministre de l'intérieur kon loolu tey buñ ko amee man loolu am naa si ak kontaan te mbégte loolu moom amatul lenn loo xam ni desal nañ ko ministre bi parce que ñun jolof si biir ngi dëgg-dëgg neex yàlla bu ñuy wax Ali jàppal nañu taxaw nañ ndax lu jëm si wàllu GIE bi xam nañ ko lu jëm si étudiants yi sama diggante maa ak ñoom ñoom xam nañ ma xam ndax jug naa fi guddi ngir ñoom jug naa fi bëccëg ngir ñoom kon bàyyiwuma leen dara kon jolof gàcca ngaa la si biir ngi nee naa la ngi su wax ji bëree tamit la ma fa def amul kenn ko ko def yaa ngi bàkku de damaa xam li may xam damaa xam li ma wax te li ma wax lépp xam naa ko baax la ma fa def amul kenn ko fa def te am naa sañ-sañ wax ko. mais da nga wóolu sa bu baax damaa gëm sama bopp wóolu sama bopp ngi ñaar rek fi ne bu nekkee mais si jëf rek la kenn du ma sa daane ndax dama ko fa jëfe ndax foyer des jeunes de ngi ñëw naa si ministre bi na ko école bii dañ koy tabaxal mu yëkkati 10 tonnes de ciment jox ñu ko. étudiants yi barki Demba Ndiaye yàggul nee naa la quatre cent cinquante mille alal leen jox pour seen logement GIE bi valeur de un million jox leen mais ñu gañawaat ay projet projet ñu tabax a ah, mais seen kër gi depuis Senghor ba léegi kan moo fi mas a tabax ak projet àggi projet bu mel ni GIE bi kan moo ko mas a def amul. léegi kàddu mujj maa ngi gërëm maa ngi sant di ñaan yàlla na nit ñi bàyyi wax ji te liggéey te xam ne liggéey moo ñu ñor wax defarul liggéey mooy defar. kon wax ji nañ ko jël teg ko fee ñu xam lañu ñor ñu defar suñu dëkk surtout nii nañ defar suñu dëkk xam luñ bëgg defar askan wi waxtaan jikko yi dindi jikko yi xoolal lépp li nga xam ne war nañ koo def apport mu rafet loolu laa am si lu may wax si sama kàddu mujj du nuyu waa dëkk bi mais waa GIE bi étudiants yi foyer des jeunes di ngi bàyyiwuma kenn leen nuyu di leen sant di gërëm di nuyu waa Guédiawaye info non sa may ma balaa nga teg lii moom force nga may ma

dama koy sante di ko gërëm di ko ñaanal yàlla élection yi nga xam ne jublu na nga xam ne si ay loxoom lañ ko teg yàlla dimbale ko si mu am si ndam yàlla dimbale ko si ba benn jafe-jafe du ko si am man loolu moom laa amoon si loo xam ne mooy sama dernier mooy di leen sant di leen gërëm wasalaam